lan mooy li ñu war a taxawee ak li ñu war a jëfee ba ñii nekk ci région bi ni ñu ko président santé ñu xool seen diggante ak compagnie minière yi naka lañ koy gën a mën a rataxalee tey mbir mi dafa xew ci Xosanto dëgg la waaye département bi yëpp am na ay zone yoo xam ni léeg-léeg dina am ay coow yu fa juddu ba loolu ministre bi yor secteur bi di la ministre Omar sar amna yenen tuki tukki ak yenen liggéey yo xamni ni wat def ko fi tay li gënoon jamp moy ñew jaale massawu xol nu ñuy dépasser situation bi mais amna benen beneen bo xamni ministre Omar Sarr mom mo koy ñew def pour région Kédougou bi yépp du yam ci département rek Saraya mais dina xol tamit département Kédougou bi ak Salémata yépp li ci li fa am ci euh, li ñu war a waxtaanee waaye la waaye li ñu war a saytu ngir indil ko ay solution di remercier bu baax euh, euh, honorable député Madi Danfaha di remercier président de commission yi di remercier maire yëpp yi jël kaddu. njiitu réew mi moo njaboote ñëpp ku xosiku si dëkk bi wala nga am gaañu gaañu wala nga am lu la metti njabootam la dal. kon dafay jaadu mu yabal ñu ñu ñëw seet la massawu la waaye tamit toppatoo la loolu mooy lii soqeekoo ci waxtaan bi